alors ñu ñu génn ci ponk googu noonu ndax ponk yi ñu war a waxtaan bëri na lool. Euh, ñu dem ci wàllum nag euh, tolluwaay réew mi. Mm-hmm. surtout ci wàllum politique. Euh, démb coalition bi nga xam te ni yéen a ngi ne bokk ngeen ci donte ne li ñu gis mel na ni bokkatoo leen ci. Mm-hmm. gis nañ leen ñu def benn délégation dem fële ca Touba Mbacké alors gisuñu leen fa. dégg nañ Habib si di préciser ñenn ci ay membres yu bokk ci biir coalition bi li tax njëwuñu mais yéen kenn déggu ci seen tur. lan moo tax déjà sax bala ñuy dugg ci loolu bokkoo leen ci délégation Yewwi Askan Wi demoon démb ci Touba. non xam nga kuy bokk day fekk ñu yëgal la mais xalifa Sall dañu toog bien avant dàq di am ñu gis ne ñu ngi koy écarte nànk-nànk ci Yewwi di ko isolé donc loolu c'est une réalité bu amoon ñi ko def nag seen bébét. nekk loolu lu dul néewal doole Khalifa Sall parce que Khalifa Sall bi ñuy taxawal Yewwi mhm. dañu am chart bu ñu tegoon te Khalifa Sall mooy ki sos Yewwi Askan Wi mhm. chart bi dañu ne ñetti parti ñoo mën a diriger Yewwi Askan bi muy Pastef muy Taxawu Sénégal ak PUR mhm. donc ñett ñooñu képp ku ñu war a dàq ci biir Yewwi Askan Wi faaw ñoom ñett ñi ko sos ñu waxante président Ousmane Sonko mu ngi ci nattu yàlla na ko yàlla gaaw teggi Serigne Moustapha Sy gaa am na kuddu muy Cheikh Tidiane Youm Khalifa Sall mu ngi fi donc ñett ñooñu dajew ñu waxtaan ba am consensus pour ta gën taxawu taxaw Sénégal donc jaay doole la ak def lu la neex moo tax ñu génne taxaw Sénégal charte mhm. mais seen charte boobu noonu est-ce que yéen salfaañe waleen ko li tax ñu teg leen li leen teg salfaañe ci nag bi ñu taxawalee yeewu askan wi dañu ne. Mhm. li ñuy teel mooy élection locale nuñ ci ànde ànd ci élection législative présidentielle nag ku nekk dem bàyyi la sa bopp loolu la ñu waxante woon. Mhm. génn nañu ci locale yàlla defal ñu si sutura ñu ñëw législative yeewu askan wi am taxawaay bu dëgër ci réew mi. Mhm. war a dem nag euh, élection présidentielle te bi ñuy taxawal charte bi. président Ousmane Sonko dafa ne woon nañu boole ci xeex bi. lu ñu amnistier Karim Wade ak Khalifa Sall ñi ñu xañoon seen ak ak seen yelleef wa ilaa it ñu defal leen réhabilitation de leurs droits civiques et politiques pour ñu mën a bokkaat si jongante donc Yewwi Askan Wi dox na ba président Macky Sall sama mag Barthélemy Diaz ànd ak sama mag Ousmane Sonko meeting bi ñu def au niveau des parcelles mhm. Barthélemy ne ñu ngi tàllal loxo président ci waxtaan wala campagne bi daal ko parce que booba confrontation bi demoon na ba jegeñante diggante opposition bi ak pouvoir bi. Mhm. opposition bu ñu daan dem ci kër kilifa diine yi dañuy wax kilifa yi ne président Macky wax leen ko mu toog waxtaan ak nit ñi pour jàmm mën am ci réew mi président Macky dem na ba xelam yedd ko ci fànn yu bari ci kilifa yi li ñu wax benn ñaari dem ba par euh, le réel politique indiqué ko ne ko li mu yoon bi mu ne bu ci xuusee ngañte moom lay doon donc ñu dem élection législative mu gis it ne li wàllu Sénégal ak Yewwi am buñ ko boolee yëngal na nguuram donc Macky Sall le président Macky il était obligé ne teg waxtaan ak ña nga xamante ne ñooy ko jege ci la woote dialogue bi mu wootee dialogue nag parti ku nekk prononcé wu ñi ne dañuy dem ñi ne duñu dem parce que Yewwi amul woon prérogative pour joxe instruction parti yi ci bokk ndax dañuy dem wala duñ dem. mais Yewwi yi dafa def communiqué ne du participer si dialogue bi ñëpp lire nañ ko. Yewwi bi ñu defee dialogue bi parti yi ñoo commencé génn lu ci mel ni grand parti ne ñoom bokkuñu ci dialogue bi. Mhm. mais dialogue kenn dafa woo coalition parti lañ fay woo et les partis sont souverains maanaam parti bu ne am nga sa sañ-sañu dem ak sañ-sañu wax. Mhm. ci la ñu nag uyu appelu président def ko dialogue gu bëccëg maanaam laaxatuwuñu demuñu pale guddi waxtaanu waxtaan waxtaanuñu waxtaanu suuf. mais foofu la problème bi ba ñu demee. le fait ngeen dem mooy foofu la problème waaw mais loolu dañ koy assumer. parce que Khalifa Sall non non pourquoi waruñu woon dem. parce que da ngeen da ngeen nekk ak seen i nawle. waaw ngeen teg seen i mm-hmm. teg seen i mbir donc bu ngeen demee ba euh, nu mu tuddati sax euh, jéggi worma wala sax sal salfaañe charte yooyu noonu. Mm-hmm. sax veut dire que yéen consom nu mu sax lépp lu ci am yéen yéen ko yéen ko tàmbale. charte yi amul fenn fu ñu ne nit ñi amuñu droit waxtaan ci lu jëmale réew mi kanam gis nga dialogue il faut nit ñi nangu gëstu politique nangu gëstu histoire àdduna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ñuy signé ak juif yi la charte de Médine la constitution de Médine si dialogue la ko defee. c'est que bu ñu xaaral rek maa ngi ñëw non non non théoriser ma damay ñëw damay jóge ci non non non damay jóge ci histoire bi ñëw damay jóge ci histoire bu àdduna bi wàcc si ci l'histoire contemporaine contemporaine de la politique donc pour wax la ne la dialogue dafa mës a exister ci diggante ñaar ñuy xeex yonente bi alayhi salaam def na ko digganteem ak juif yi mhm. ba mu jur la constitution de Médine juif yi am seen i droit jullit yi am seen i droit ku nekk bañ a transgresser la nga xamante ne moom la dëkk mhm. nga jóge fa nga ñëw en 62. Mm -hmm. la crise de mais les principaux acteurs ci crise bi dem nañ ba ay at ñu accepté nangu ne waxtaan moo doon li ci réew mi ñu jàll ko dem 88 la crise de 88 parce que fii dara beesu fi 88 diggante président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade metti woon na. Mhm. mais fan la mujjee ci waxtaan parce que tëj nañ ci président Abdoulaye Wade à l'époque am na ci ay tolof tolof mook PDS mais si table dialogue lañ lañ mujjee mook le président Abdou Diouf ba def un gouvernement d'union nationale nga ñëwaat en 93 affaire Me kër Seye bu ñu ko weesoo ñoom PDS ak le régime socialiste dañ toog waxtaan jubboo ci kàddu gouvernement du d'union am ñu lu ñu def indiwul gouvernement d'union waxtaan ça ne veut pas dire que ne dangay dem compromettre wala def compromission. ak mais li ngeen def loolu la xaw a niroo la non non mënu ko niru. bàyyi ma ñëw bàyyi ma ñëw bàyyi ma ñëw Nelson Mandela tey ñëpp ko jël comme icône ci wàllu politique ci wàllu résistance ci wàllu ngor ak wàllu dëgg mais Nelson Mandela dem na ci biir kaso ba ne ay nitam gars yi taxaw leen nag fu mu toll nii foog ñu waxtaan dialogue am pourquoi booba ay nitam ñu Nelson Mandela traître la mais yéen. yéen da dem pour mën a nekk candidat. non ñun dañ dem pour discuter non ñun dañ dem pour discuter mais ma ñoon dama lay fàttali 2019 dialogue amoon na Khalifa Sall nga ci woon ci kaso bi nekk ci ay tolof tolof am problème politique ak le président Macky Sall mais pourquoi boobu opposition bi new ñun ñun duñ dem dialogue wala Khalifa Sall ne ku dem dialogue traître nga le parti socialiste ci lañ jóge taxawu a toujours été xaas mhm. ci politique boo xam ne waxtaan la privilégié te xalifa balaa muy dem dialogue am na ngorog laaj mais ñi ko jiital parce que taxawu Sénégal damay fàttali ne du xalifa Sall mooy bunti bu mi déedéet loolu xew fa day am xalaatam ñu am suñu yos bu dee moom la mu wax ñun arrangé wuñu dañ koy mettre en minorité te du appliquer lañ ko wax donc man gisuma waxtaanu bëccëg naka la ci nit di goree de xalifa Sall da gis kenn xeexal ko pour retrouver see droits civiques et politique ci opposition bi amul xam xam nga xaaral rek da nga gis Khalifa Sall xaaral rek Khalifa Sall toog na suma kilifa suma xarit suma mag Moussa Taye wax na ko ay kilifa bokk ci yeewi fëgg buntu kër Khalifa Sall ne ko dañu bëgg nga jàppale ñu pour ñu nekk candidat ci élection yi mel ni Khalifa saal moom dafa ñëwoon rek nekk un mouvement de soutien non. ku ko def loolu. non am na ay leader ci biir Yewwi Askan Wi ñu ko def. ñenn ñoo ko def. non du ma parce que émission bi boo xoolee. na leer la tudd non loolu. fii ay laayam laayam yi moom. laayam laayam yi amu fi. voilà mais ci principe bi laay nekk. voilà ñenn ñoo ñëwoon fëgg si. non mais ay ay njiit ay leader ci biir Yewwi Askan bi Wi. son ko par exemple. du ma tudd tur non tudd tur. waa tudd tur du mais ay parti la yu wax nii kon vraiment say gens mënoon nga ko denc quoi. non du ma ko denc. non si ko denc mais dafa baax xam xam nga dafa baax xam parce que nit ñi ñu ci bari. non nañu tel. loolu loolu man du ma ci dugg. parce que jamono ji ne aussi. waaw faw ngeen leeral ah, parce que ñu bëri ñu leen jàppee moo di ay traître yow déjà ndaw nga am nga avenir ci wàllum politique. Mm-hmm. bokkoo Khalifa Sall donte ne sa njiit la mm-hmm. euh, war nga mën a ragg sa bopp ba vraiment ëllëg ci biir nga bàyyi ko. mais ma ñoon du ma ragg suma bopp parce que defuma lu may ragg suma bopp li ma lay fàttali mooy balaa ñuy xam xalifa Sall. Mhm. ay ndaw lañu am xam-xam ci politique ndax yàgg ci doon ci taalibe ba am ci cër xàmmee ràññee mën a déglu mën a saytu nit. Mhm. bu ma gisoon tarfatal ay ni ci ku wor mu jóge ci Khalifa Sall dem ci doomu aadama ci politique wala mu jóge ci Barthélemy Diaz dem juge ci mi jëm ci doomu aadama ci politique man maa njëkk a taxaw jàkkaarloog ñoom mais man ay gor laa ko seexal te it du ma hypothéquer sama avenir politique pour défendre loo xam ne du dëgg politique jarlu ma ko. mañoon mañoon mañoon li ngeen di def balaa may balaa ñuy politique balaa may politique. maa ngi añ maa ngi reer maa ngi dëkki maa ngi am teraanga. non mais mais dafa rek ma ñoon dafa ndànk ñi dañ ci yaakaar ne. que dañuy regle ay problème pour mën a nekk ci àdduna déedéet bi ma amee fukki at juróom benn ci laa commencé di liggéey di ñax di amal suma bopp ba tey yàlla tudd ma jiite yoof politique dundaluma man maay dundal politique. ci barke Ousmane Sonko nga jiite yoof ci barke Ousmane Sonko. Eh, non ci ndimbalu suñu borom ndax jullit laa yàlla laa gëm yàlla mënuma wedd li mu indi ci jàngaleem ci téere mu ne nguur moom yàlla. moo koy jël jox ko ku ko neex. bi may falu meeru Yoff damay fàttali 2014 laa njëkk diriger une campagne nekk mu woon candidat 2016 ñu dem référendum mu diriger la campagne contre le référendum ñu am plus de mille voix maanaam juróom benn junni baat ci Yoff ñu dawalaat bu 2017 ñu investir ma en 2017 ma nekk jeune suppléant sur la liste de Manko Taxawu Sénégal parce que 2017 dañ fa waroon jógee dem élection locale 2019 mais waajal sama candidature ma ne donc élection yi suppléant la du ma falu do du dem assemblée mais naa peese man lan laay jar biir Yoff parce que ñun bi ñuy politique diggante 2014 ba 2022 maye nañ fa lu ëpp ñetti junniy bourse jàppale ko ñu ñu dem uti xam-xam bi ñuy politique diggante 2014 ba ba ñuy falu dugal nañ lu ëpp juróomi téeméeri permis de conduire si ndaw Yoff bi ñuy politique jël nañ lu ëpp fanweeri million gunge ko femmes yi Yoff pour ñu développer économie sociale et solidaire. Mm-hmm. ñun xëyuñu ñu name ñu ci politique wala xëyuñu rek ne tëpp ci mbir yi falu déedéet dañu ko liggéeyi dañu ko dox. kan moo liggéeyul. non dama ne man boog laa xam xaw ma keneen. non parce que yéen fan yi dañuy di gaaruwaale parce que gaaruwaale ñu kenn. damay rétablir les faits. parce que buñ la tuumaalee. Mm-hmm. yaakaar ne balaa 2022 tekki woo woon dara. balaa 2022 kenn xamula woon mais waa Yoff ña ma bokkal ak ña ma dëkkal ak ña ma doon jàppale ràññoo woon nañ ma xamul nañ ma amaana ba réew mi nag. mais réew mi normal. non réew normal parce que bokk na ci politique yi nga xamante ne. Ousmane Sonko dafa jógee ci Ziguinchor ñëw ba sa. wax nii ak seen comportement tey jii. non non non ah, ak le président Macky mu suñu ànd ak le président Macky Sall. bu wax déet déet bu ñu wax lool dugal si gaal boo ngeen def nii lan lay nirool seen. déedéet dañu dem waxtaan waxtaan waxtaan ak raayante ak moom ah mosuñu raayante ba nekk candidat après ñëw. bu doon dañuy raayante ak président Macky Sall. Khalifa Sall kon 2017 du nangu dugg kaso. xalifa Sall def na fanweeri weer ak ñaar ci kaso. onkul yuuxuwul jooyul mu dund ko avec dignité moo tax ma ne la bu doon deal day am wala négociation am ndax ragal ñàkk nguur wala ragal kaso kon ñun waa taxawu Sénégal rapproché nawu si Macky Sall depuis 2017 mais depuis lors ñu ngi dund ak dignité Khalifa Sall a été plusieurs fois ministre 2000 ba 2009 dafa galère nekk dans l'opposition nekk député sous la bannière de l'opposition 2009 mu affronter le régime du président Abdoulaye Wade gagner la ville de Dakar. 2014 mu affronter le régime du président Macky Sall fa la gënoon neexee mënoon na ne du ci sonn damay ñëw rek toog ànd ak nguur gi mais mu jàkkaarloog le régime de Benno Bokk Yaakaar gagné waat la ville de Dakar dem ñu tëj ko kaso mu investir ko te liste maa ngi ko taxaw Sénégal nekk député. mais dama la bëgg a wax ne. avant mm. deux mille dix neuf les gens avaient une vie politique ñun dañu mës a am utilité si suñu communauté dañu mës a taxaw suñu communauté suñu fal nag je le réitère yàlla moo ñu fal suñu njaboot suñuy wéjur dañu indi seen contribution suñu famille au sens large indi seen contribution suñu mérite politique. ñu ngi doon taxawu yoof ràññee nekk xale bii boo ko dénkee dëkk bi mu liggéeyal indi contribution am coalition Yewwi Askan Wi Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane yu mu bokk si Cheikh Tidiane yu mu bokk si Cheikh Tidiane yu mu bokk si Ousmane Sonko bokk ci voilà Déthié bokk si kenn ku ci nekk mais maa ngi ñëw maa ngi soo ma bàyyee ma daaneel doo waroo ak man ci kàddu dama ne kenn ku ci nekk indi say militant nga ñëw am une participation active le pur c'est activement euh, mobilisé pour sama élection dama leen di sant dama leen di gërëm Ousmane ko dafa déplacé wu ñëw dama leen sant dama leen gërëm mais c'est pas parce que Sonko ñëw na sa dëkk que moo war a nekk le facteur déterminant non non non dama ne dama ne Sonko contribué na Yewwi Askan Wi kon mais dama ne bu doon phénomène mooy fal kon su ma mag Bassirou Diomaye Faye njaga ñaaw gële du ko perte bu doon phénomène mooy fale Boubacar Diallo su ma mag bi ne Cambérène bokk Pastef kon mu falu kon suma frère Omar Rémi Touré nekk Wakaam falu dama bëgg ñu delloo mbiri au réalisme politique ak gëm yàlla loolu laay woo tous les acteurs politiques par rapport à cette situation kon yow yow yow da ngay da ngay da ngay mettre en cause phénomène Ousmane Sonko. remettre ma en cause phénomène Ousmane, Ousmane Sonko actuellement. Ousmane Sonko gën a am popularité si biir dañ ko accepté mais dama ne kenn mënul dindi ci suma bopp. def benn mandat def demi mandat laa ko yemale dama ne. nguur yàlla moo koy joxe loolu nit mënu ko teggi ci suma esprit ci suma ngëm-ngëm ci suma yar tey niñ ma yare bu ma mhm. génnee wax leneen lu dul yàllaay fale mhm. su may mbokk génn ci man parce que on a été éduqué sur des bases et des principes yoo xam ne dafa méngoog suñu cosaan ak suñu aada mhm. su ma imaan mayuma may xëy di ne yàlla faluma dama ne suma fal si yàlla la jóge comme dogal mu jaar ci man dividende politique yi ma liggéeyal su ma bopp man ak waa taxawu Sénégal jaar ci njaboot gi ma bokk Yoff bokk dans une famille religieuse et coutumière Yewwi Askan Wi doo le président Ousmane Sonko indi ci seen contribution donc kenn ku ci nekk da nga natt pour mbir mi bañ mën a am mhm. mais dama ne balaa nag may tudd nit damay sant suma borom mi nga xam ne moo joxe nguur loolu kenn mënu ko tegg wala léegi dañ bëgg jël li yàlla dogal ñu teggi ko pour lu neex suñuy jëmm moi je ne le ferai pas dara jarul ma ko ci àdduna d'accord d'accord mais dama la ne mhm. on n'a jamais été ingrat et ça je le précise bien devant les Sénégalais. ci président Ousmane Sonko. la ko Khalifa Sall man taxawu def na ko. la ko Barthélemy Diaz man taxawu def nañu ko te moom bu toogee tey wet yal na ko yàlla génn ci wetaay bu mu nekk dina xam ñan ñoo ko bëgg ak ñan ñoo ko bañ ñi ko doon bëmax naan ko demal affaire bi yow la. tey ñu ngi toog seen kër jàpp seen jàmbur. comme ñan comme ñan mais bëri na fi. non non non comme comme ñan. bëri na fi yéen a toog seen kër actuellement. musuñu toog suñu kër. mais ñi mu doon àndal yëpp démb rek gis nañ leen ñu génn Khalifa Sall a ñu yeewi kay. mais koo bàyyi mu dama xi mbagam. ñun mais dañu dàq nañ leen ñun l'essentiel mooy am nañu mbébétu mottali suñu yéene dinañ dem ci réew mi doxal ko mais dama la ne na sénégalais yeewu bu dee dañu bëgg confrontation ak le régime du président Macky chaque jour ñuy wàññi ay nit yuy faatu ak ñu toog waxtaane ko ba jàmm mën a am je pense jàmm ji mën a am ci waxtaan mooy liggan gën ci réew mi wala yow mañoon danga bëgg saa ñu xëyee ay ndaw ñu leen di yóbbu ci morgue yi loolu mooy sa mbébét déedéet ah kon nag léegi bu dee loolu mënul nekk lan moo mën a nekk mais toog waxtaan teg réew mi fuñ ci mën a toll bu daan am jafe-jafe waxtaan day am ñu déggoo ci kàddu ñëpp war a mën a ànd dem liggéey. li nga wax ni mhm. li nga wax ni maanaam danga ne Ousmane Sonko dafa am ñu ko topp naan ko yow la yow la tey ji ñu ngi toog seen kër. mais dafa am ay fan ci ginnaaw. Mhm. wala ay weer ci ginnaaw ku ñuy wax dàmbooc. Mhm. dafa yëkkatoon ay kàddu ne. Euh, élection euh, yi ñu génn. élection législative su ma juumul. Khalifa Sall erreur bu mu def. moo ko tey. tey jii la ko avenir jox dëgg uh-huh. que ne Khalifa Sall mësu koo bëgg uh-huh. Khalifa Sall ku ko yàgg a kàmbal la uh-huh. lu waral euh, nan nga jàngatee déjà coow loolu wala sa kàddu yoo nga xam ne démb dégg naa dàmbooj daal di koy réitéré te dégg naa sa jamono ji seen diggante ak dàmbooj euh, ay xalabante ay sànniwante non ñun suñu wax ak dàmbooj parce que kàddu yoo xamante ne kàddu sos la ñun duñ ci bàyyi xel wax dëgg yàlla ndax am nañu yeneen priorité muy convaincre sénégalais yi ci suñu projet politique non maanaam Khalifa Sall ban rôle la mën a jouer xam nga boo ma laajee aussi il faut nga may ma ma tontu. d'accord vas-y. non il faut nga may ma tontu Khalifa Sall gisuma fan la mën a jaar ba teg Yewwi Askan Wi ay ndëgg sërëx ba liste bi yàqu xalifa dañ ko ne defaral list fu nekk Pastef jiitu. ñu positionné parce que président Ousmane Sonko lañ décidé woon mooy nekk la tête de liste. mu wax parti bu ne ñan ñoo fa war a dugg ku ne ñu jox la sa position. mais Khalifa Sall dafa dem direction générale des élections parce que kii defar liste mooy le mandataire national. Mhm. te le mandataire national yow xam nga ko c'était Déthié Fall. ñu dem ba Déthié Fall war a defar list yi. Mhm. war a dugal pièce d'identité yi. Mhm. war ko agencer pour mën ko déposer ak list bi. mais ñu ràññee ne am na jigéen ju nekk PUR joo xam ne ay atam matul pour nekk député. ñu signalé ko waa PUR Cheikh Tidiane Diouf ñu génne ko ñu dugal keneen koo xam ne. investiroon nañ ko ñoom ba pare sur la liste des suppléants. Mhm. waa léegi loolu xalifa Sall lu si yoonam yow joxe nga ñi war a dugg waa PUR ñoo joxe ki indi problème waa kon léegi xalifa lan moo ci responsabilité kii defar liste bi kay war a dugal tur yi wala ki war a joxe ki war a remplacer mais foot bi si ñoom ñaar la. mais kon xalifa amu ci benn. responsabilité amu ci benn responsabilité mais xam nga suma turandoo Seydina Issa Laye nekk mm-hmm. nekkoon ñetteelu xalif Seydina Limaamu alayhi salaam mm-hmm. da daan wax yàlla nu yàlla mu musal si kilifa bu am daraja te du wax dëgg am daraja nag te doo wax dëgg weesuwul nga tuumaal xalifa sàll ci lu mu deful moo tax ma ne la kàmbal gi ñuy kàmbal xalifa sàll yàgg na biir yewi askan wi ah parce que balaa ñuy am jafe-jafe ba ñu ñu naan daax nen ñu mais sëriñ tuumaal xalifa ne moo yàq liste yow deux heures du matin joxe nga liste bi ñu war ko déposé yow dem nga ñibbi mais bu dee am na erreur ci benn parti yow lan moo si sa responsabilité bu dee parti bi joxe na ñaari nit ñu investir kii titulaire investir keneen ki suppléant mais loolu lan la ci responsabilité Khalifa Sall uti kiy defar liste kay war ko déposer au niveau de la direction générale des élections mais c'est le mandataire de la coalition Khalifa Sall n'était pas le mandataire de la coalition d'accord donc loolu dama bëgg askan wi dugal ko seen bopp d'accord xam ne wax ju amul bopp la woon ju amul genn wax la ju ñu tegoon pour jaxase sénégalais yi ak ka nga xamante ne mooy Khalifa Ababacar Sall. d'accord euh, wax naa ko léegi si ndorteelu waxtaan wi euh, waaye Yewwi ba ñu demee.